wa ki du alaaji Papa ndjay ba ma balde alaaji Papa ndjay ci lo ne. lepp jam naka sa jam sant yalla naka sa jam yaram. kala alaaji Faram lu lay nifi tay ci sat ah alaaji Papa ndjay bu Ama balde alaaji ana Ama balde fu ne. Ama mi ngi fi nagu ngar yi domi fallaaji xala bi xew si jamono xam ne bu jógee Pikine jóg at na jóg man nak bas li bas salikum bas la fallaay balde da wax bayam loolu la doon tay kembe Ama Jaawo. ha balde mom fi fa takkee ba ñëw fi nga xam ne bi moom fi arène nationale fan la pël bi mom nga ne Pikine moom lamb mooy xale bi nga xamante ni moo xew si jamono lamb nii xutu la wax léegi fadam lu tax boo ko waxee dañ naan da ngaa far des fois ñu sànni lay xeer mhm. naa la diw ak diw ak kii nga far lamb tëlatu fooy far la nit na boo seetaanee lamb 30 ans mis nga lamb sam xëy jéem a ngont mee ci res wallaay ndeysaan alaaji Papa Ndiaye fadam bi xam ci lamb du léegi wallaay ndeysaan alaaji Papa Ndiaye wax ji ni waxante suuf te yéen a yéen ñi ñi jàmm lamb da ngeen koy suturloo réew mi xam nañ si ngeen di waxtaan international àdduna leen dégg mhm. xam leen ci ngeen ci am soppee soppe noonu na arrière te xam ne làmb ji ñoo ko bokk mënuñu koo yàq ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi xaayam na ku dégg séeréer yàlla bu tàggoon na mayet sax amatul nguur kon ku ne sa buur bopp yoon boo xewee nga doon doo doon buur kookoy alaaji papa ndiaye bu ama balde bi nga xam ne Pikine la waree ñëw ci arène sama alaaji papa ndiaye ana sëll bi sëll baa ngi fi di pël kenn du moom ci àdduna ama ne naa la wa fadam barke Serigne Bamba Mbàkke ne waaw ba eh, eh, la lamb di ci eh, ama balde mu raam ama balde ama mooma xam sol dàll plastique yi barke Serigne ba bët ya firse oh ndax ama bu takkee ngemb la kanam gi day saate est-ce xam nga ne tey wax la lu garaaw ci Ama. loo may waxati. du am doole ko yabal guddi bu timis gi xasee dugg lay Amay am doole moo tax ñaari mi yëpp ñu waxtaanee diggante Ama Baldé Gris Bordeaux. lamb la Gris am lu mu ci lamb loo xam ne gars koo xamul. mooy lan. Gris Bordeaux dafa yàgg bëre bëre 96. jamono yu bëre ñoom Samba Diagne. wallaay ndeysaan dafa yàgg dafa yàgg. di meññ ca keroog ba heure bii li mu bëri Balla Gaye fii ci la. Mhm. dafa bëri lu doy waar. te dama gis ne Gris Bordeaux dama koo laaj ne ko sa diggante ak Ama Baldé mu ne ma Ama Baldé bii teg pied droit daf may arrangé te loolu daf may neex ah. day dóor ba pare te day song Gris Bordeaux mi ngi riñaan boo xam ne si di damaytu ko mu ñëw doole force mais am na xel boo xam ne da koy maîtriser làmbam kere moo waral a mu dafa moom Balla Gaye fii dëgg la tuuse na ko ay gauche droite làmb bañ loolu mu daw jàpp ko ñu fàqante Balla Gaye ñëw trois appuis Gris Bordeaux la tànkam mu ko mu ñëw mais ndeysaan dafa gitaaru xam nga Gris Bordeaux bëri gitaaru benn tànkam sori mm-hmm. avant mu ñëw Balla raam jóg lamb jooju kere li mu bëri fii la dafa doy waar Gris Bordeaux Balla Gaye kere ne kenn jeexalu ci Balla dëgg na ko ndaw Balla war na ko dese ma neuf ans ci am leneen lu xew waaw caatu Fallaye Balde bii di Ama Balde ba léegi xaftaanam tooye gut fii ci toolu maamam non ne fii jar su xol bi seet sama xol day seet nag pul bi dama koo xam doomi Fallaye ji nagu ngaar yi nga xam ne bu jógee àdduna jóg ah! kenn du doomi Fallaye ji moo fekk kër ga doon baraak mu tabax ko ba mu nekk troisième ñu naan am na kër ak amul kër la mu dafa raw kër ku sa bàyyi baay baraak nga tabax ko troisième étage moo raw kër bu ko neexoon day jënd terrain tabax ko nan bàyyi amul kër ama mooy kër mu ngi dawal oto fanweeri million nangam loolu day caaxaan ci ñun réew nan bàyyi lu ñaaw li ñuy wax mooy làmb yàlla ko yàlla mais mais diggante diggante Bordeaux ñu ne Gris Bordeaux pare nga Ama Baldé pare nga waaw kon nga gis lu garaaw barki Serigne Touba ni muy garaaw ala jàpp jaay moromu kenn ci lam nee naa la kooku ama mu teg droit ba xaj ah ba yàgg nee naa la bu mbébee waaw ah, mais Ama Baldé mu waree Pikine jëm si arène nationale waaye ah, Alaji Papa Ndiaye loolu la war a mel li leen di ñaan kere yàlla nañ indi huit personnes ñu dara Ama ba ci biir stade barki Serigne Bamba ndax lamb jooju lamb ju ñu dar ko teg ak tey te nag naa la xam ne affaire boo xoolee lamb yi changé xam ne suñ commandant ñu leen di sant di leen gërëm sant de l'ordre bi waaye alaaji Papa bu ñu toogee ba fii mhm. doomi Falaye Baldé ji nga xam ne nii fii ñu toog nii tooli maamam la woon loolu maamam la woon diggante mag Modou ñu ngi ne Modou ci blessure

la ma la ma gëj a dem. ah gàncax mooy yaram wa tàng di ruux mel ni ay poussé yu ndaw yu ñu koy jam. bu ne bu lekkee cere ba guddi la yaram bi gën a xam xam nga lu ma jom man. waaw. Ama Baldé mu sol dàllu plastique ya sol njoxasu caaye ba Falaye de nekk ca wet ga Malaw nekk ca wet ga Alaaji Mbay nekk fee yor wala wala bu nekk fee ah di Fra nekk fee te loolu kabiyaas oh ndeysaan ceebu dem na oh! laat gaañu na oh! dem baa ngi Europe wallaay na kenn du Ama Baldé ñu ne waa kan ñu ne Aziz ngeen dem bàyyi leen de kenn du Badou Alé Ndiaye ak ah foo ama nekk ña nga fa dañ koo bëgg. waaye mais nag dama lay wax lenn nga dégg ko. yéen nga ne Ama Baldé day làmb. non kenn du moom mooy làmb nee naa la ama am ak Modou Lo bi mu taxawee rek. yaa ngi nii taxawoon ba am ay problème rek. rek laa ci jotoon a am arène nationale ne mu mel ne ampleur làmb jooju ñëwaat est ce que a di bëree fii ak Gris Bordeaux. waaw danoo toog ba 3 heures. yaa ngi nii noonee naan du fees euh, soq ak Franc keroog bi ñu bëri ni arène nationale bi ba si yàgg jinne yi làmb ja fees dell waaye fekkee ñoo ñoo mën a feesal làmb kon El Papa Ndiaye bu Ama Baldé ñëwee ci làmb tey dama lay seere du ma la may a war a yóbbu Léopold ama xajul fii ama ne naa la bu duyee a nekk wallaay ndeysaan bii def si milliards yu bëri 32 xaw ma 32 32 mille places ñuy daj ay 6 boo demoon ca Paris amu fa Cincinnati amu fa amul New York li stade Paris la nan sant suñu Macky Sall mii du ay caaxaan yàlla ko yàlla defal jàmm. ci El Hadj Papa Ndiaye ko ci boole kenn du ci àdduna. waaye Ama Baldé rek. ama rek. mu raame Pikine. mu raame Pikine. ñu tagg xobu garab ya. barke Sëñ Bamba def la bàyyam daan def. muy takk ma ñëw taxaw. waaw ma lan laa a bëree ma ne ko nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam. digal na ma jiitu ma maa ngi ci ama ba waaye nag sa digganteeg Modou moom ba léegi Alaaji Papa Ndiaye kenn déggatul nga wax sa sa kaddu. li tax fi ne ni mënatuñ ci wax mooy téléphone ñi ngi wax rek. non man ma yaa ma leen leen kenn du fa dem non ne. est-ce lu garaaw Fadam mbër nga woon mais da nga dem ba yàlla dogal nag nga nekk koo xamante ni barke sëñ Bamba li ngay liggéey ci biir làmb fi nii maar day taale amoo fenn changé dëgg amoo benn bër changé ma dëgg communication di la gërëm yal na yàlla defal jàmm. waaye El Hadj Papa Ndiaye lu oto xat-xat na lu ma sama yaay xaj na ca diggante Modou Lo daa nekk roi des arènes. dëpp na balaa ma may benn xale sens dinaa ko may Ama Baldé. li ma koy xam xaw ma tur yi dama daa am ngu ne spël ci ñëwati na dama ko yàgg xam. kan loolu. Mamadou Lo. wallaay ndeysaan. muy watu jibu ñu naan tenteen. tenteen la daan watu. bi ma koy daan dama koo xam. wallaay ndeysaan na booy bii booy bu lakkantaan nii wallaay su mbaw na ma booy bii Mamadou Lo la tudd mën a kii fu dëkk mën a la dëkk mën a kii xanaa siiwagul mën a mënoo siiwagul de bii mooy deuxième fois muy bëri si mbaban mën a ko mbër lay doon mën a bëri moom mbër kaamil la mm-hmm. kenn du ko xas li war a bëri fekkee man maa fekkee tam mu nekk ndaanaan boo xam ne kenn du ko confirmé ku dul waaye alaaji Papa Ndiaye bu ñëwee Modou Lo ngeen mën a dogali ci biir a dogali ci eh, ci ci làmb jooju mooy <laughs> baar bi di suulee waaw su ma doon arbitre waaw <laughs> ndax lan non bu mbir daanoo ñaari champion la ñaari ndaanaan des fois damay sot mais damaa xam ne arbitre bi suulee ne Modou Lo pare nga na Ama pare nga ay Ama Baldé Ama dagaju oh. non kay nag kooku nagu ngaari la buy song ci nee la barke jàpp na na rabi àlli gaynde ci man te ursu kenn mënu ko ursu mooy jàpp rek laa wi ama bu ne kirti du bàyyi bu naan kirti mun loo jël bay am moo ko bu doole bokkuñu la ñu yaakaar ci combat bi du am jàpp na ne alaaji Papa Ndiaye fan nga technique Modou Lo Ama Baldé ko ëpp doole non moo ko ëpp doole xam naa leen ñoom ñaari te gis naa leen yàgg naa leen seetaan ama ursu la ama am congom fi nii nii amul ci mbër mbër yëpp ama ci ëpp doole fi nii lu garaaw laa lay wax cey moom ci àdduna ko ci arène nationale bi jotee ngay ah jant ba lang jant ba lang karaw nga jaxasoo ah. te El Hadj Papa Ndiaye. arène nationale bi. ah yàlla na yàlla gën a dolli jàpp. kenn tey moom a production. waaw tey moom lañ fekk si biir di sa doomu ndey. jërëjëf da nga gis lu doy waar.